والسفلي من أهله في نخلة màggal yëpp yàlla Mouhamed jar na ko ne turandoo Mouhamed Cissé waay ah waaw waaw. wa bi nuuri hadyika saadati azmaam saadati azmaam. ku sopp taaw na baax Malick defal nii Serigne Maodo si nee na. بذكرك غنت الأكوان وبنور هديك صادت الألوان هذا هو القرآن هذا هو القرآن هذا هو القرآن في صبحاتي صبحاتي خلد لنهجك صانوا المنان هذا هو القرآن هذا هو القرآن في آياته آياته قرد لنهجك قرد لنهجك صانوا المغنان هذه تحية الشاعر هذه تحية الشاعر في فيها ولد فقامت الأركان قصب سيدنا محمد هذه تحية شاعر في ليلة في ليلة فيها ولدت فخامة الأركان فالعدل فالعدل والتوحيد والتوحيد خير أساسها أساسها والذكر والتسبيح والقرآن والقرآن سرين بياني ديك سرين مودة سينغا وي سيدنا محمد نينا كو فأقمت دين الحق دين الحق ترفع الشأن وهدمت دينا ركن الأوثان وصوب تاو دبخ مالك دفني وإذ كنت من الأرعاب تاب ولم تزل تلو بكلام لا قدر خلمران رسول رسول حميد آمد ومحمد آمد ومحمد رسول رسول حميد آمد ومحمد آمد ومحمد نبي سما فوق فوق سما كين ساميا والمتلافتا والمتلافتا وفقرا وسودا والمتجع يوما يوما يسيب نواسيا وقد خاف إلى الوارحين مسبعا إلى الوارحين مسبعا وجاب بعورا عذرة المكذب متدانيا صلى waaye muy yokk waa kër Serigne Maodo si kaw na ko. ah waaye jar na ko de. kasa mahabbatin. Serigne Maodo say wax. shakirtu bi an xubbi man yata aw daa. wa basarani sirran. ah. bi anni mutayyamun. wa anni. bi fadlillahi fi jannatul xuldi. وبصرني أني بحب جمالي سبقت لذات اليوم في الحصر والغد كسب سيدنا محمد وفاتحني بسر سر إلهنا وألهمني فيضا يبلغني قصدي فقص بهذا الفيد بحرا بشطي وقفت أناجي ربنا مخلصا وحدي لك الحمد لك الحمد إذ ألهمتني ربي حبه فحب رسول الله لي غايه من تقص وأحمد التجاني شريف في الصدر والورد فآقذ ذا الورد منا موقف لنيل دمان البريء دام في العقل تغس رسول الله لي خير ملجأ وأحمدنا التجاني في الصدر والورد نبي صلى الله عليه وسلم جنبي jugee ko ba Dakar bàyyi ay yitte yu tar sax waaye rus ñu ak ñàkk xam lan lañuy def moo tax mu dagg yitteem yëpp ñëw kon ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko sutura li ma may leer na ma leer yàlla ne mënul ko may keneen parce que dafa nekk ci ay yitte yu tar moom xam na ci lum ne man xam naa ci lum ne kon su mënee dagg yitte yooyu ñëw am na fu ñu teg kon sëriñ bi ñu ngi lay jërëjëfal di la ñaanal di nuyu suñu sang bu baax muy xaj bu Saaxo 2 gis nga alaaj bu Saaxo 2 yëpp bëri na mais bu 2 yëpp teewee moom mooy seen général dana jug nag ubbil ñu moom la ñuy wax alaaj Ibu Saaxo 2 maa ngi ànd ak it samay rakk maa ngi ànd ak ñaari doomi nitu yàlla yu baax ñu koy wax xaaji xaasiru jàllo ak Mouhamad Sadiq Jàllo ñu ngi dëkk ba tubaa Saïd ca gannaaw Njaay Kunda seen bàyyi di nitu yàlla bu mag xaji Sadiq ni ki tey jii la waroon a gontu dem Tiwaawoon man maa ko fomm ne ko foog nga teewee bis bi comme ñu ngi ko door a sos nga wàcc fi def fi ñaan yàlla mën ci wesal barke kon Diallo Diéry ñu ngi lay jërëjëfal kon daal dañuy jël kàddu gi jébbal aji Ibou Sakho bu ñu ubbilee ba pare su ngeen ñu may ndigal ñu waxtaan su ngeen ñu may ndigal ñu ñaan nag ba déwén suma alladina kafaru bi rabbihim yaadiluun huwa alladi xalaqakum summa qada ajalan wa ajalun musamman indahu summa antum tamturun wallahu fi samawati wa fi lardi yalamu sirrakum wa jahrakum wa yalamu ma taksibun wassalatu wassalamu ala muhammadin alhabibi شفيعي رؤوف رحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس مئة ألف فرج غريب وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه السلام عليكم تسلمي tout le monde Salut tout le monde. I greet everybody. You solid on the mosquée. maa ngi nuyu ñëpp rek. nuyu bii ñuy nuyoo ñu ngi koy ñëppal ñëpp roccuwaat ko ci biir ñëpp ñu Muhammad ñennatal ko ñennat buñ ko ñennatalee ñennat ba ñennat ñi def na ñoo gën ñëpp ñi ma roccuwaat ko ci ñeneen ñi ñëppal ko ñëpp ba ñëpp ñu defee nañoo gën ñëpp ñi ma roccuwaat ko ci ñëppal ñi ñeen natalaat ko ñeen natat mujj koo roccuwaat ñëppal ko ñëpp faf ñëpp faf ko ñëpp ma nuyu ñëpp gis nga nuyoo lu am solo lu nga xam nga tey nuyoo baat bi ma waxoon laa tabda salaam bi jam kiir doo fa innaha munakkirun yaa ngay ɗo sawa selwi no mbaɗɗa jam tan kasumay tabarakallahu soko noon kolle yooyu yëpp assalamu aleykum mooy jiitu bii lañ mboolem kuy jullit bokk ak looy lakk yonentu nee na su ngeen bëggee bëggante dee leen nuyuwante gisuloo kuy romb ay nit di nuyoo te am yitte même buñ xamul ci yow ak mbaax dañuy commencé di ko seede ci yow diw ak a baax ta ak a xamuñ ci yow ak mbaax waaye romb gi nuyoo gi lañ tuddee baax booy romb doo nuyoo ak loo baax baax di jël sa kanam gi di ko yóbbu ndar gu ndaw ak loo baax baax yaa ngi commencé soof ñu naan diw mii day ak a bëri tiitar man naam sax loolu newul ci yow waaye ñàkk gee nuyoo tax ñu commencé la takkal loolu kon la nëbbi su ngeen bëggee bëggante afsu salaama baynakum de leen nuyuwante nuyoo nag amatul léegi nuyoo mooy baatu jàmm asalaamaaleykum yàlla nga am jàmm ñu ne waa aleykum salaam yow yàlla nga am jàmm waaye am na ñu tayal ñoo xam ne da ngay gis romb nit nuyu ko de mu xool la ba seppal la ne la salaam billaahi am na meer yu koy def foofu xala tayal yoon asalaamaaleykum fekk alif googu foofu mu ñëw ci nuyoo lay nekk di du ma yàgg ci baatu nuyoo boobu asalaamaaleykum alif googu foofu mu ñëw salaamaaleykum kenn du ko wax asalaamaaleykum la ñu wax yàlla na nga am jàmm moom it mu ne la waaleykum salaam yàlla na nga am jàmm yonent nee na na su mbooloo àndee romb kenn mbooloo ma ñoo war a nuyu kenn ka gaaw ba kenn ka xam ne mbooloo mi jàmm la ñuy dox mbooloo ñoo am di dox daje kenn kuy ñëw mbooloo mi war a gaaw nuyu ba kenn ki xam ne mbooloo mi jàmm la ñuy dox si di lu juuti reen su fekkee ne nit dafa armé wu daje ku désarmé ki armé wu na gaaw nuyoo ki yorul benn arme ndax ki yorul arme xam ne ki armé wu gaaw jàmm lay dox ne bay wax su xale rombee mag ci teggi ni nuyooyu na ko nuyu ki dugg war otom mbaa motom romb ki toog ci bunt këram na ko nuyu nee na na ngeen yaatal loolu ba àgg ci sax bu ñu fi jógee ëllëg kër ga ñuy dëkk kër ak kër ak jàmm la ko yàlla tuddee lahum daaru salaam inda rabbihim fa ñuy dëkk kër ak jàmm la tudd mooy daaru salaam mooy aljanna kon nuyoo am solo la xoloon na bi ni mu baaxee Muhammad tey sa turandoo ak a baax waaye baax nabi kenn mënta natt baax kon kum ne buñ ko faale kooku la mu def rëy na te nabi nee na bu nit ñëwee ci yow laaj la soxla te nuyowul lu mu yàkkamti yàkkamti bu ko faale fi mu ne bu nit ne woon saax ci mbooloo mi ne takkusaanu sëñ Babacar bi fi ñu koy defee lay laaj donte fii la comme nuyoowul na bi ne bu gémmin dem bu gémmin ibbeeku ndem dafa ne caax ci mbooloo mi di laaj ndimbal ndem mën nañ ko am nañ ko comme nuyoowul na bi nee na bu loxo dem poos waaye kii lim def rëy na na bi ni mu baaxee te am teggin te bañ a ñàkkal ker kenn kersa comme ni bu leen ko faale bu leen ko lijjanti kooku lim def rëy na kooku moo njëkk def ñàkk teggin soo ci nit ay at yaa njëkk def lu ñàkk teggin looloo yàkkamte yàkkamte priorité avant wax mooy nuyoo asalaamaaleykum waaye waaye nuyootuñu nag léegi Sénégal nee naa nuyootuñu doo ma laaj lu fi xew dama ne Sénégal léegi jaajëf lañ tudd sant naa yi jërëjëf jazakumullah sëñ bi ni ma nuyoo baax na ci xeetu nuyoo yu am solo yi asalaamaaleykum ngeen tegante loxo am naa maam bu neexoon yàlla ko yàlla yërëm ko ne ko woon ko ko maam diw de ku baax la mën a ah, wet diwu ma de waaye mosu tegoo loxo de <laughs> tegoo loxo ci baax la bokk di hmm? loolu lay wax de moom fu la am la ci am diw de wet diwu ma baaxaay waaye mosu ñoo tegoo loxo nuyoo boobu nag bàyyil xel nag gars yi léeg-léeg nga da jago ko oustaz barakala kii di nuyoo na moom nuyoo lii mooy nuyoo bu ànd ak ziar léeg-léeg nga gis ko dof naan nii sëñ bi maa lay ziar ma ne waxal yaa ngi nuyu rek ah déedéet ziar mooy nuyu bu ànd ak ziar maa ngi waaw ah, kañ boo roccee sa loxo am lu des ci boo koy ziar bàyyil xel loolu. boo gisee léegi réew mi jàmm ji ñu koy woote bëreetul sëriñ mooy léegi réew mi jaajëf lañ tudd sant naayis naka waar yi seen bàyyi kuule seen bàjjen lépp jàmm di seen nijaay. jaajëf naka waar jaajëf mbër jaajëf gaynde jaajëf kuul loolu du nuyu benn waaye wax na ma ko ca kër Masar ca Dakar man ne ma jaajëf gaynde ma ne ko sëñ bi lu ma gaynde gaynde digg bëccëg bu ngeen dajoo doo ko nuyoo noonu su ko defee ñu wat xel nuyoo moomu li muy gàtt gàtt noonu la amee solo noonu la mën a yokkee cofeel noonu la mën a ubbee lu bare bare asalaamaaleykum kon asalaamaaleykum man de nuyu naa leen fayu leen ma mbaaru li daloon waaja damaa dal gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp nag ñu ngi nuyu sang bi ñu àndal Mouhamed Taïb Cissé mi neexaan la lool ñu ànd ci gor ak nawle muy ku baax ku fonk nitam tembare ñun tembare yàkkamti dugg oto ba gaaw mucc yéen da ngeen di sembare ñun dañoo tembare ñoom ñu ne dañuy daw rek amuñ arrêt maanaam ñun de am nañ arrêt billahi buñ accès ci rasulillahi fa la ñuy wàcc allah te jima la shawqi suñu arrêt mooy ca rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee gullu gullu xam nga mooy lan mooy suul xulluxu suul xulluxu mooy gullu gullu moo moo moo contranté xusnul xulluxu xusnul xulluxu mooy jikko ju rafet gullu gullu gu mooy suul xuluxu mooy jukko ju bon wax ju amul parti amul place amul bopp amul génn jullit bu mat sëkk mesure xam-xam mais di wax wax yu dof yoo xam ne ku la laaj doo xam lu muy firi ngëla ngi ci àll bi loo dégg roy ko jullit war na passé loolu yonentu jukko ju rafet la ñu jàngal wax ju rafet ci jukko ju rafet la bokk yàlla na ko yàlla xéwal ñu ngi jégalu ci kàddu yi lañ doon ibbil sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu لو خيتي كوثر أنا سبي محبوسة Yeah!

yàlla sa dégg mu ne ci góor ña yóbbu jigéen ñi aljanna ma ne ko ban aaya jigéen ñi ñoo yóbbu góor ñi aljanna nga war a wax yonentoo wax ne góor gu baax gu nekk su amee soxna su baax dina ko teel génn wala diina am ki lay sa génn wala diina kay su góor ga mott mottali la des ñii nag ku ci amagul matagoo waaye ku ci am te góor woo ñu tardel la soo wattuwul ñoom nag yàlla bind xalaqa zakara sa yàlla bind góor jël ca faaru góor faar wa gën a dëng bind leen ci ñoom sama sëriñ ba laaj yi bu soxla ne képp ku fi am soxna ne dama yab nii la yaa ngi ci erreur de ndax bant ba wow ko nga lun ko lool soo jubbanti mu damm xam nga damm dañ lay romb ki walis waaye ci lu gàtt soxna su baax suñuy wax Xadijatu dégg ngeen ko xam ngeen ko Xadijatu bintu ku Xuwaylid aawo la woon yaay la woon gis nga lii tànsukat yi wax xamuñu ko sax aawo yaay mooy Xadijatu bintu Xuwaylid kooku moo jur doomi yonent bi yëpp ba mu des ku ñuy wax Ibrahim xam nga nu mu doon sëy ak rasulillahi mu tedd ma su bëccëg jotee muy jëkkër bu guddi jotee muy soxna moom Xadijatu bintu Xuwaylid bu lamp ñëwee mooy fay bu courant moo fay te du tere la ko war mu koy def jigéen jooju nag ci gàttal laa la bëgg a nettali alfa tënkul de yonent bi tax ñu am bi mu amee ñaari weer ci biiru yaayu Amina la baayam dem barzak mu judd ba am quatre ci daa ji ñuy jàngal yaayam wani koy nijaayam moom rasulillahi bi muy wàññee ko dee jot ko ci benn tool bu ñu wax paa paa benn toolu paa bu ñuy wax tabia yaayu Amina bi muy sukuraat booba rasulillahi nga am ñeenti at ci ati zahir déglul foofu erreur dafay am xam nga nebi sallallahu alayhi wa moo tax ñu bind ndeyam ak baayam moo gën ndeyam gën baayam gën sunuy ndey gën sunuy baay tax ñu bind ñu tax ñu bind sunuy ndey ak sunuy baay kon bu ne yonantu ba nga am ñeenti at ati a tax bi ñëwee ci alam bi mais nabee mag yaayam ak papaw moo tax ñu bind leen waaye booba ñeenti at la am ci ati zahira yaay aminaan ci sukuraat allahu akbar na bee nga am quatre ci ati zahir booba yaayu amina nga am ak jaamam bu jigéen bu ñuy wax ummu ayman nabi di jaar ci biiru yaayam di raam di jéggi di dem ak a ñëw yaay amina ngi ci sukuraat ak ni sukuraat métti waaye mu góorgóorlu ba tii ci ñaari mbaggi rasulillahi na ko sefeet ba nabi tiim ko mu xool ko ne ko doom li ma génti te gis ko mooy sa jëb du sujjootal xërëm millatul xanifa sa maam ibrahima ko fi indi moom nga yeesalaat doom danaa dee ndax lu dunda dee lu yeesalaat luy ñëw taawa ñeeku ak ku lu jëndirin baal ku lu këbirun yufna ana may tootoo zikri baay tirtu xëyran wérëptu taawra foofa la faatu ummu ayman boot rasulillahi indi ko ci maamam bu ñuy wax abdul muttalib moo jur abdallahi mi jur rasulillahi xam nga ñaataat la fa defaat yeneen kaat muy huit maamam faatu yonentu am na juróom-ñetti at baayam ba faatu na maamam bi jur baayam faatu na ndeysaan ne bi jirim la waaye jirim boo xam ne maamam ma ko yar baayam mu ndaw yaru ko te ñi seen baay ak seen ndey yar ñi gis seen ndey ak seen baay ñoom ñëpp moo leen gën a yaroo asafankal sabba fi yutumi waaye nag adib billaahi daw ñu yóbbu ko ci bàyyam bu ndaw bu ñuy wax Abdul Muttalib Mouhamad Taïb Cissé xam nga ñaata at la fa def juróom-ñetti at lañ ko yóbbu ci bàyyam bu ndaw mu am fa juróom-ñetti at ba 49 ans ñeent fukki at ak juróom-ñeent foofa la rasul yàggee maa ngi lay wax na nag danger bi gën a garaaw ci àddina waxtaan xam naa yàgg ngeen dem ci tànt rasul lay waxtaan yi bari nañ mais bokkuñu ma ne ñoom nabi laa wax nabi laa lay wax nii am na kuy wax nabi fekk nabu lay wax te yëgu ko bëri na koy wax yonent bi fekk yeneen ti bi baas yi lay wax te yëgu ko danger la ngay tooge sa bopp fu ñuy waxtaane yonent yàlla Muhammad nga ne fa di waxtaan leneen lu dul farata billahi fii ñuy waxtaane yonentu képp ku dégluwul te jógoo dem kaa ngi toog ci jotaay bii di perturber ñiy déglu yaa ngi posone sa bopp déglu leen nabi la ñuy waxtaane ne bi sembulul moo tax nga am Dieu n'a rien créé pour lui tout si qu'il a fait c'est pour prophète Rasulullah yow mi séddale baal ma tuuti rek kuy séddale ku ne may waxtaan fu ne xañ nga ma ñetti client ndem lu ñuy sàqame la ki koy def dootu déglu ki sës ci moom ba nga sàqame ni moom te sàqameegul dootu déglu ka ko sore nag fële nag tante faal du yo xamtalu nan balaa yu ñuy sàqame ak si ci man jeexam déet kooku dootu déglu ñetti client ngoog te dafa am ne lu ñu fi indi woon lu sax xami juróom-ñetti at lañ ko yóbbu ci bàyyi bu ndaw di bàyyi si naal mu am fa juróom-ñetti at ba ba ñeent fukki at ak juróom-ñett huit ba quarante neuf ans foofa nag laa bëgg a wax lii gis nga caa Abdul Mutalib fa la nabi njëkk a gisante Xadijatu am na ku ma dégg mu koy woy bàlleen ma naan bi ñuy door a gisee ci la yëg ne dina am lu xew déggu leen sañu loo ma ko wax sañu ma la ko wax mu ne ñu gisee di xoolante may dunde yaakaar ma ne ko yéen a xam waaye daal bi nabi di dóor a gis xadi jotu laay bëgg a wax abdi manaaf daf ne yonti yàlla muhammad doom uti liggéey jot na ci yow te sama loxo jotul sama gannaaw am nga mbokk mu ne fii di jàppale jàmbur ñuy liggéey nañ fa dem mu jàppale la nga liggéey booba xadijatu mi ngay dégg di aawa rasulillahi di aawa yaay moom xadijatu am na borom kër gu ñoo hind yàlla weddi mu am borom kër gu ñuy wax atiq yàlla weddi mu ibbi fonds de commerce di def mu daara la cent mille francs dem Dubaay jëndi marchandise ñëw séddoo bénéfice ba jëlaat njëg gi jëndi noonu la xandi jotu doon mujjee def loolu dagan na ci lislaam waaye xam nga lu mu ca teg Muhammad daf na gisatuma góor gu ma jaral tëjal bunt bi sëriñ baa ngi toog bu jëlee mu lekk waaye booba njool mu rafet maa ñëwagul sunu waaje booba bàyyi Fatima maa ñëwagul góor gu tedd ga nga xam ne dafa rafet nga gis ko sopp ko moo baax nga soog moom naw ko noonu la nabi mel te danaan wax ne allahuma ahsin xuluqi kama ahsanta xalqi yàlla maa ngi laa ñaan nga rafetal sama jukkoo comme ni nga rafetale sama bind na bay ñaan loolu de te yàllaa ko defal ko gis nga bi yént yàlla muhammad baay mu ndaw wax ko loolu ne ko doom ci liggéey jot na ci yow nañ dem ci xadi jot mu jàpp booba yonent yàlla muhammad ma wax la ne tey nga xam ko yóbbaale ko yonent yàlla muhammad ak xadi jotu mbëggeel kese boolewuleen ñoo bokki maam keroog dana la wax léegi ci lu gàtt keroog bi yoor-yoor alfa sëriñ bi yaa ngi dégg yoor-yoor bi rasulillahi ànd ak Khadija ah, ah, rasulillahi ànd ak Abdul Muttalib di bàyyam ñu nuyoo kër Khadijatu fekk Khadijatu ngi dindil gàtt yi matt xam nga arab ñoom dañ daan am alal mais seen alal gàtt la daan doon ay ay xar Khadijatu yaa ngi dindil gàtt yi matt mu xifee rek. seen bët yi ñeent mag rasulillahi laa ilaaha gis na ko rafet nag xadijatu yàgg naa wayaase mi <laughs> gis na ko rafet kaa ndax nabi yéen ya dafa sëq mais roofalowul leex ya dafa rataxoon forme gémmiñ nga daq ci lu yàlla bind moom yonent yàlla Muhammad taxawaayam njoolul ba ne su tox gàttul ba ne ndukkuj mbagg ma mii ndodd li comme baraadu wurus bu yëkkati waaye loxo ya dafa nooy di xeeñ parfum ku ma jox loxo quarante niwi sa loxo di xeeñ parfum quarante personnes yoo jox loxo seen loxo di xeeñ fa fii kat fii réexoon تفهم وتستري ريح القسامة أو صفي مضامي سيداج مالك نن نكون نتا تنك رسول الله لا قد gu neex guy bon ni dàq ci parfum yi kum jox loxo sa loxo di xeeñ parfum ba 40 personnes kooku la Xadijatu door a gis bi ñuy door a gisee ñoom ñaar ca yoor-yoor nga Xadijatu dafa patiné gars mos ngeen loolu ci mbedd yi mos ngeen loolu ci mbedd yi wa xasafa fi qulubihim raab léeg-léeg nga dox ba yem ci gone koo xam ne sa dinay tukki sa fit bi na rëf nga naan man li ma gis mbaadu jinni nga ñëw di wér de di ko teewlu bay wasifa soo wëttuut dootoo lu nga naan ma daal xale bii daal xale bi xaw ma dëkk waaye jaxase na sama xel mi déedéet ni ngeen dajee la dajee bee tax bi xadijatu gisee rasulillahi ci saasi xadijatu mag la xel mi jox na ko ne kii bu dul yonantu it waliyu la ndax ku rafete ni man mosuma ko gis te moom da daan voyage moom Khady Diatou am ay emploi di leen liggéeyloo di def commerce nekk commerçant grand commerçante bi ko boobu gën a mag ci àddina ki ko njëkk a doon Sayyidatuna Khady Diatou la mais xoolal dafa def yëfi mag dafa dalal Abdi Manaf di bàyyi Rasulullah bu ndaw ak yonantu yàlla Muhammad ci saal bi boobu comme néeg yi léegi day am buntu sarale mu jaar ci buntu sarale ba dem seeti génn góor gu ñuy wax waraxa waraxa naw fa la ko jur Nawfal góor gi Asadin ko jur góor gi Asadin Abdul Xusay ko jur Abdul Xusay Xusay Muhammad Abdalay Abdul Mutalib Hashim Abdi Manaaf Xusay kon juróomeelu maam la ñu bokk moom Xadijatu ak Rasulillah keroog bi Xadijatu ñëwee ci bàyyam mu ndaw boobu xolal daal di ko waa papa yéen ñi jàng téere yi doo ma xool ndax yonent di war nañoo jeex Xadijatu warax roofu ci bibliothèque bi rocc benn bouquin dóor ci taabal ji lañ bël ne ko ah soxna si des na yonentu mujj jamono il est vingt cinq ans actuellement te war na voyager dans quelques jours xadi jotu kontaan yaakaaram dugg mu ne ko papa baax na daal di ñëw toog na papa lu newoon seen i tànk yaay xadi jotoy mag réglé na ay kotom ba mu féete côté mu door a ñëw di laaj lu neegoon seen i tànk Abdi Manaf ne ko kii sa doomi mbokk la yaay jàppale jàmbur ñu ma bëgg nga jàppale ko mu def commerce yaay xadi jotu muuñ daan ne papa góor gu ne daan naa ko jox trois cent mille pour mu commencé mais ki naka jox deux millions daanu la di tif se ko yàgg ah jar na ko nag ne bi dafa neex a bëgg de dafa rafet ku ko bëgg sax te muy dëgg ku la gis bëgg la waxuma la ne bi nag waaye mu ne suba am na karawaan bu war a dem saam bu saware na ci bokk ñu xëy nag war a dem jaayi première voyage rasulillahi xadijatu def fi mag jël jaamam bu benn jaamam boole koog rasulillahi muy maysara ne ko deema toppal waaju baax ji fi ñëwoon suba ci voyage bi lu mu def bind ko bu ko jege ba mu xam ne moom nga suivre bu ko dand ba dara dee rëcc ci moom lu mu def su ñëwee bu ñëwee ci voyage bi rendre ma compte ñu xëy nag war a dem jaay alfa maa ngi daaneel foofu te ñëw ñu war a jaay première voyage rasulullah am na rabu soxor bu nekkoon màkk daan dogale jëgg yi di yàq marchandise yi bi nabi génnee rab wa génn gaa yëpp a tiit nabi na ñëpp sama gannaaw moo gën a ñeme góor ñëpp moo gën a ñeme góor ñëpp laa wax keroog ba rab bu génnee ñëpp yi pat pati na ne na ñëpp ñëw ci sama gannaaw si daa ji Malick nee na lu nekk rasulillahi nettali naa ko ba mu des njàmbaar ga tuuti laa la ciy mosal madinatul munawwara dañu toog génn guddi am lu yëngu góor ñu tàppet ñëpp jegewaat ah, ah, ah soxna yi sango bu baax a baax góor ñi fa gën a ñemee dañuy ut ñu ñu àndanteel ba mat onze personnes dem di yëngu di xooli la yëngu fu mu yëngoo fekk ne bi moom dem na lijjanti ko ba ñëw dajeeg ñoom ca taatu dëkk ba ne eh, dox leen tëddi dara xewul dara du yëngu dara du xew dem naa ba ñëw waaye nabil Moustapha keroog barab ba génne ga yëpp jaaxle nabi jël baramam bu tedd ba joxoñ ko rab wi mu lem loos wi lem geen gi ne meng ci xeer yi fii ma taxawaate yow ci saara ci takkusaan sëñ Babacar bii di wax rab ba génnaatul ñu avancé nag bu rabbi rasulillah yi jinne yeeg malaaka yi soppali ko nit naan ko jaay ma muy jaay xaalis di dugg te marchandise du jeex ndax lu ñu jën tegaat ko fa rasulillah yi bu soxlaa boppam garab yu bëri ñu koy wër waaye bu ko beñ bu rafet moo fay nekk bu naaj tàngee na bi dafa gore du yàkkamti du buuxtu du gaawtu njëkkante bu naaj tàngee ñu seen kër gu neex temp na daan dox xam nga dox yi nag bokkuñu na bi bu daan dox daan temp temp na parce que ay façon temp temp am na timp timp am na rëjëx rëjëx am na jaagari jaagari am na këlëng këlëng am yolos yolos am na kaatar kaatar yi dox nu takk der la gëbër gëbër yi dox nu mbër la yolos yolos yi nu ko ñàkk dépense la daan yolos bana rasulillahi bi tafakkurin yamsi huynan lalaha asurun bi sirri wala bi siyamin piano piano way sano e valontano ndank ndank ndank di dëgg fu dëgër bu yàggee nga àgg fu nga jëm nabi nag noonu la daan doxee tempo tempo tempo rasulillahi di dox bu doxee ba dëgg ci beeñ beeñ bi noo dëgër ba tànki nabi di dugg ba dëggee ci xeer xeer war nooy ba tànki nabi yi marqué xeer bi day bañ tànki nabi yi gaañu beeñ ba day bañ tànki nabi dugg fekk lu mu fóorta fekk na tempo nag jëm ca kër ga tempo tëmp tëmp tëmp tëmpa rëjëx rëjëx dañ koy bañ su jigéen nag la gën a bon rëjëx rëjëx alxuraan ko tere nee na jigéen buy dox du rëjëx rëjëxi day bañ la muy rëjëx rëjëxi am lu rajax rajax loolu lay bañ moo tax tëmp tëmp tëmp tëmp la nabi doon doxee bi nabi di tëmp jigéen du jigéen du waaxu du rëjëx rëjëxi danaan tëmp tëmp alxuraan ay wax waaw alxuraan ne jigéen du rëjëx rëjëx day temp temp ndax nee na rëjëx rëjëx day am luy rajax rajax waa nga rajax ñu bari nag ñu alko sax benn yoon asubhu bada ne bi di dox ndànk ndànk jëm ca kër ga ñi yëkkam ci rombanteeg ne bi di njëkkante ker ga kër ga rombanteeg ñoom ñëw ci ne bi bàyyi leen ca naaj wa asal asubhu bada ku sopp sayyidina muhammad may saraa ngi bind bi ñu del see nag yooyu la xadijatu jël ko def ko muy waru gar kon jëkkër dañ koy tànn kenn du ko taamu xam nga tànn ak taamu bokkul tànn mooy waajee waa euh, taamu taamu mooy waajee moom gàlle bi ak gàlle bi ak gàlle bale gare voiture bi ak béeg bale nga xeemeem ko dugg ci moom ngeen njaboot la ma yoroon jeex nga ngiroo dootoo mën a génn ah, waaw kañ waaye tànn nag moom jikko ak diine la ñuy tànn loolu rasulullah wax jikko ak diine la ñuy tànn moo tax xadijatu moo magee ak rasulullah fukki fa fukki at ak juróom la ko magee waaye terewul xoolul mageel gi moom qualité la doon wër xooloon quantité ba gisee ne nabi qualité la ci la dugg ci moom jébbal ko àllam jébbal ko boppam yàlla fay na ko mooy doom yi rasulullah am yëpp xadijatoo leen jur ba mu des ku ñuy wax Maria Maria ba mu des ku ñuy wax Ibrahima Ibrahima yaayam Maria la tuddoon Mariatul Xibtiya taara la woon munta noon mesure kon day nekk yonantu te yonantu du nekk gannaaw yonantu fala risalata baadi wala nubuwata inna risalata wa nubuwata qadin qataat fala risalata baadi wala nubuwata inna nubuwata wa risalata qadin qataat fala nubuwata baadi wala risalata inni nubuwata wa risalata xalin xataan xataan mu xataan fala risalata baadi wala nubuwata nee noon te du ñëwaat gannaawam moom yent yàlla Muhammad Xadijatu nag yooyu la dajale def ko muy warugar fexe bañ may ko rasulillahi mu kontaan wesaare ay fleur ak libidoor ak benn benn tàndarma ciit ga neexoon na moom rasulillahi saboor keroog Xadijatu saboru na ndax kontaan ñu ne si daaji Malik mbaa amee wu ca bakkar mu ne déedéet la ca jëlee yaa xadijatu mooyey ndax ku mel ni rasulullah ku ko am sang boobu ku ko am comme borom kër war ngaa sant yàlla acca asubada sayidina muhammad dindil ko dindil ko moom dindil ko dindil ma écho bi dindil ko écho bi mu nekk baas asubada ku sopp yonent yàlla Muhammad ba defe ni yàlla boo wàccaaleeg bàkkaar asubhu bada walaw annahum izalamu anfusahum jaawuka fastaghfirullaha wastaghfir lahum rasul liwajidullaha tawwaban rahim Chose vous provoque sincerely in thee the prophet for the resurrection God the Almighty will forgive them kenn du bàyyi Fatimatu bint rasul jaddu Husayn sayyidu sabab ahli janna boo defee musiba bàyyi ko fa nga defee musiba ñëw toog ci wetu rasulullah baaloo fa musiba mu baaloo baalul la musiba yàlla baal la musiba ndax nabi yàllaa ko xejjal seenal ko ci boppam bàyyi fa kenn du yonent yàlla Muhammad képp nag ku yàlla baaxe nga roonu tant yonent bi santal yàlla du ñëpp ko xam de am na koo xam ne munoo fexe fexe ba mu roonu baasu rasulillahi soirée rek la mën a dem munta dem daal ci baatu rasulillahi ah am na koo xam barakallahu yàlla yàlla barke lépp ci daraja yonent bi الصبح بدا كسب ينتبه صلى الله عليه وسلم دفل الصبح بدا كفي لا لا جيال نكو يالا فاتش درجو ينتبه الصبح بدا محمد تيب شيشي سترون دوكو اندالا آجو تنكو يمتي سخلا ستر فجو نجاقرق لمن دون وفي جوغي يالا بودي منغا تقلقو من درجة رسول الله الصبح بدا xéewal la nag yàlla xéewale la ngay yëngu ci rasulullah yombul xam nga tante bi buñ ko tantee rek tante ju mu neex nga ñëw fi de ko buñ tantee fi rek ku neex ku sa tante neex rek mu ñëw fi déedéet am na ñoo xam ne buñ tantoon fii ba déwoon seen tante yi du ñëw ci tante bi parce que boolewuñ leen ci wala du du nit ñooy boole yàllaay tànn fii yàllaay tànn ñi fiy dugg mooy segg li muy fiy génn du ko neex nga dëju du ko neex nga joxe bi taw féex asubhu bada mooy teel a tàkk na teel a tàkk na teel a tàkk na bu teel a tàkkee rajo na kamat teel a tàkk na teel da ngay xool di gis di dégg rajo da ngay dégg rek waaye teel da ngay xool di gis di dégg télé nag mooy rasulillahi ami min talaati bi ne bi ñëwee addina dafa leer addina dafa leer dafa fekkoon atawal kufru fii jawrin wa zulmin fa qaadal kulla an dinin li dinin bi ne bi ñëw dafa fekk xale yi sembere rek yéeféer yi di sembere rek ku nekk tooñ ëpp doole sa moroom tooñ dóor waaye bi ne bi ñëwee moo fi jëlee lëndëmu kéeféer indi fi leeruk liimaan léegi kenn xal ñi moo tax sembere baaxul de tembare baax tembare jëm ci rasulillahi ba nabi ñëwee moo fi jëlee lëndëm indi fi la rasulillahi wallaylu daja min wafrati waaye nee na triste na bi nabi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tëddee Madinatu Munawwara keroog ba mu faatoo nee dafa mel ni lampe ba ñu taaloon ci addina bi dañ ko contact bi dañ ko fay nee na addina yëpp lëndëm bi rasulillahi demee faaqa rusula yonente yàlla yónni yëpp mooy seen sang mooy seen patron moom lañ doon xàllal moom yonent yàlla Muhammad moo leen gën ci ngëneel moo leen gën a kawe yonent mooy gindi subula mooy gindi waaw li dalalati képp ku réer boo toppee rasulullah dem ca sunu borom kanzul karami yonent yàlla Muhammad mooy trésor ba mag bi mawlan niami yonent yàlla ko rangay xéewalam heedil umami yonent mooy gindi xeet wi li shariati teg leen ci yow wane coow ba biral janna askan nasabi yenen too gën a tedd ñëpp askan bàyyi Fatima alal hasabi moo gën a tedd ñëpp gëñoo kullul arabi waaw fii xidmati képp ku yàlla naral mbaax gëm nga ñool màkk liggéeyal ko saati shajara yenen tu doxloo garab ci kanamu ñi sopp sayyidina muhammadu ah, ah, ah. saati sadara wa kana fadlullahi alayka azima i have given to you all kind of favor rasulillahi saati sadara nabi doxloo na garab ci kàttanu yàlla nadaqal hajara nabi waxloo nay xeer doxloo leen xaar leen ci kàttanu yàlla suqal xabara nabi joxoñ na weer wi ca kaw mu xar ñaari xar dëkk yëpp gis ko ci kàttanu yàlla bi ishaarati te fi mu toog jugu fi dafa joxoñ baram bu tedd bi rek weer wi xar ci digg bi rasulillah sabu ya rasulallahi tuballi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ma asrafal xalqi ajmaïn jumlatul ata jibril ko ñëwal laylatan asra guddi ko sunu borom woowee ak ngan huwa rabbu daa ne ko bàyyi Fatima yàlla la woo soxla la li hadrati ca hadaram bu tedd ba pour teral la ku sopp yonent bi taxaw jugal taxaw ca kaw ne ma ma la sharafa yonentu am nag tedd nga naa la sharafa. siitu wujuud yi gën a tedd ñëpp moom rasulillahi. naa la sharafa. moom am na tedd nga ba tedd nga am sax dafa rogalaat ba ci ay sëtam faxru mutaashirun min ali baytil mustafayna wallahu afaa. aha. salafa min ummati moom rek la yàlla may lii. xeetam wi bu ñu waxee bàkkaar ne astaghfirullah yàlla baal leen mais bu ñu jullee ci rasulullah ñu jël bàkkaar ba soppi ko tiyaaba inna alxasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra li zakirin yént yàlla Muhammad moo tax yàlla jege ñal lu sori woon wàcce lu kawe woon neexal lu wexoon seddal lu tàngoon rafetal lu ñaawoon muy daanil xotlu fi inde kulli janin moom yént yàlla Muhammad moo tax suñu borom ne su ngeen bëggee ma bëgg leen dafay am luy gën a yomb simple mooy bu ma ibbee sa xol lu toll ni pépp suuf ci bëgg rasulay na ci nga dem aljanna é qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum zunubakum Hey, love the prophet and God will love you and will forgive you also and will forgive you sent kon yal na yàlla yal na yàlla tàggatal ñu sunu xol yi ñu bëgg yonentu yàlla Muhammad bëgg gu dëgg yal na ko yàlla defal yal na ko yàlla xéewal bëgg gu jur topp bëgg gu ñu dul lor yal na ko yàlla defal change la nag wax naa la ko sanq soo demee ci arrêt bu ne maa ngi laa ne soo demee ci arrêt bu ne da nga fa fekk policier yu taxaw léeg oto ñëw ñu ne la nii nga duraate léeg-léeg ñëw ñu ne la nii nga avancé malaaka yaa ngi toog fii wër jotaay bi ku ñëw war a droite ñu droite la boo wutu droite ñu avancé la dégg nga li ma wax avancé avancé ji xale yi wax léeg-léeg malaaka yi avancé la ba nga sori dem daanu ji fële kër de ville su ko defee kon ñu bàyyi xel loolu wax naa la sàq ne sëñ Babacar li ko yàlla may c'est pas le marabout mais c'est loolu sëñ bi dana ko leeral li xale yi wax ñoom waxuñu ko dégg naa nag ñu ne dañoo ñoom dañuy lan dama dégg temps yi ñu ne yaa ngi cin du tàkk këram ñun ñii am na ku fi si ku fi sa cin tàkkul sa kër am na néew na de bu amee néew na lu jamono métti métti métti mbokk yi ñu ngi xëy di ndékki ñu ngi añ ñu ngi reer ñu ngi sangu ñu ngi sol yére kenn ku nekk boo ubbee sa barnaa ñaata yére fa ne te fuñ toll naan jamono ji kat neexul waaw bu jamono neexoon nu muy mel bu jamono neexoon nu muy mel. له ثلاثون يوما ما يزول ما كان suñ njàng yi nag wax dëgg yàlla melul ni jàng pël ya waaw wow mbaa kenn du fi pël pël yi dañoo organiser jàng Souleymane maa ngi jégalu de ba dañoo organiser jàng yu neex ndeysaan taalibe yi bi wéykat yi sarax eh, tabarakallahu lépp neex ñu ne nañ leen jox sëñ bi sëñ bu mel nii man amul xam-xam jàngul mu dëgër fii ne mooy sëñ bi ñu ne nañ leen jébal sëñ bi kàddu yi kay mu wax ak mbooloo mi sëñ bi ne ek eh, kam kam ngeen la war a waxtaanam gars ko wallaay xamaguñ ko ma ne dem leen gëstu ji ko ba déwén moom mu war a wax ak nit ñi nañ ko gëstu ji ba déwén déwén ja jot ñu baaseti defar yëf yi yëf yi gën a neexati lépp ñu ne tey moom bu sëñ bi waxee rek ñii nañ ne waaw ñii ne déet ndax du am lay sëñ bi jëla timi koor yi ah kam tey kam ngeen moom lañu war a waxtaanam ñii ne waaw ñii ne déet mu ne ñi kam nañ ko wax ñu ko kamut ba déwén jàmm déwén ja nag ñëpp ne nañ mànkoo ñëpp ne waaw rek sëñ bi moom dootul am lu mu wax déwén ja bu mu ñëwee yëf yi neexat yi ñu ne tey moom bu ñu jébbalee sëñ bi kàddu gi war nañoo mën a dégg lu ñu jommal sëñ bi ne ekkam eh, ren moom kam ngeen lu ñu war a waxtaanam ñëpp maa ngi ne ko waaw mu ne kon faatee salaatul faati jarul waxtaan xam nga loolu lu koy def sëñ bi mu ñàkk xaw-xaw <laughs> yaa ngi dégg kon tas yaakaar baaxut yént yàlla muhammad daan na xiif ndeysaan ba jël ay gémbaraay de ko takk ci biir bi ngir mën a am kàttan gu mu taxawee jaamu yàlla bis xiif na xiif gu métti Bilal dugal tàndarma ci poos bi pour jox ko yenenti bi am benn waaju ju dogali Bilal yenenti bee ngi gis Bilal mi ngi xor xooral tàndarma bi ngir bàyyil ko dara moom yenenti bi ne ko Bilal joxeel lool bul fi desal dara yàllaa ngeeg leneen lu dul lool walla ah? xoolal man mi rek bërki démb rek am na ko ma oo wax ma soxla sëñ bi sa wéef bi nangam mag nangam ma ne ko lu fi des dama koo soxla de kon doon na gu ma yenenti bi بطنه علم وحكمة وفم وسر ونعمة leen jëf waaw leen góor xasida bi daf may yëngal ki ko wéy ci raw du rasulillahi la ko wéyee bi mu koy wéy nag xaal dikkal ko wéy bi mu ngi koy wéy moom waa ji waaye xadara ba ci kaw ñu ngi koy wéy yàlla jox ordre mboolem koy malaayika àndal ak waa ji wéy wéy bi yaa muhammad yaa habibi yaa يا أبيبي يا محمد كن جديدي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن جديدي يا محمد يا حبيبي di ko rek naan ko yaa Muhammad yaa Habibi yaa Muhammad yaa Habibi dem ba am xaal nekkatu fi moom waa ji nekkate pëy ba ci boppam ñu ngi ànd ak moom di wéy wéy wi dem ba mu yëg ne jëlee na jàngooro ci biir wéy wi te bu ci utul docteur bu koy faj moom dana dee ci kéeféer mu ne yaa Muhammad kunta bii bii fexe la nekk messin bu may faj ci sama jàngoro ji may yëg yenent bi ne ko ban xeetu jàngoro nga am mu ne ko ajiir ni min la xëb yi inna awzaari tiqaali nag ma musal ndax bu dul yow kenn du mujj xam nga busiri mu ngi koy wax ci burda ba yaa akramal xalqi maa li man aludu bihi ibaadu yi ci kalmaan yi di ko di ko yéeféerloo fekk ñoom ñooy yéeféer yi yëngalul yowmal xiyaam laa wax amul benn yénant bu yàlla di jox ordre ne ko yow war ngaa mën a dugal say nit aljana ku dul yénant yàlla muhammad yaa akramal xalqi maa li man aludu bihi من حالف yaa ngi dégg de kon ku dul yenent bi mënut a garanti nit keroog yowmal xiyaam ci kanamu yàlla kon ñu gaaw profitoo rek parce que buñ ko naree benn bennal dañ fiy fanaan ñeenteel bi nga xam ne daf ne ko boo ko rombee na ko daw te muy xaj bu dee bi mu ne ko mooy heure boo doxee ba dégg ñuy wax ci nit lu ñaaw fexeel ba daw bu ko déglu te jamono ji waxuma la wax lu ñaaw waaye nit dalay xamal posté ko ci internet bi est-ce que loolu jaadu yenent bi alayhi wa sallam man satara musliman fi dunya satarahu llahu yowma alqiyamati ku suturaal jullit fii ci àdduna yàlla suturaal la keroog yowma alqiyam xanaa bëgguñ sutura yàlla ñun jullit ñi nit audio nga yor ñaari téléphone jël audio bi transfert ko ci sa beneen téléphone loo ca nar du jàmm nit oo la appel nga di ko enregistré loo ca jàmm est-ce que loolu jaadu na est-ce xelu na est-ce loolu doon na yëfi nit ah, ah boo demee ba dégg ci nit lu ñaaw toog di ko déglu musiba dal na la njaalo araam na wala araamul ah araam na ah benn oustaz ndeysaan oustaz bi dafa toog di jàngale comme jigéen ñi rek léegoo li nga gis jongoma yu bëgg xam seen wàllu diini ñëw ni oustaz bi daal dama bëgg sama wàllu diine lu ma ci réer nga gindi ma ci jour mu xëy xet gu neex rek toog dend ak sëñ bi jël loxo bu nooy bi kat di ko raay ci ndongu sëñ bi ne ko sëñ bi njaalo moom li ci <laughs> yàlla wax sëñ bi ne ko borom xam-xam yi de ñu ci laam-laamee ba léegi waaye leeragut yaa ngi dégg kooku yaragul bakkanam bii waaye yëg nga ne lu njaalo di bon bon bon bon waxuma la nga jëw de mais toog déglu jëw a ko gën a yées ah, njaalo lu muy bon bon bon toog déglu jëw waxuma nga jëw de toog déglu ko moo ko gën a yées léegi nag sama mbokku jigéen ñi suñu yaay yi suñu tante yi suñu bàjjen yi suñu yumpaañ yi suñu soxna yi ñoom ñi nga xam ne ndékki yi ñu ngi koy reesale ci jëw añ yi ñu ngi koy reesale ci jëw reer yi ñu ngi koy reesale ci jëw te soxna Fatima bintu Rasoul toog na bis mook rasulillahi benn jongo ma bu sol yére bu rafet Fatima ne kii yëre mbee rafet waaye lenn rek ay cat li mooy day buube Muhammad ne ko xaqarndikul ma xaqarndi def li muy lu ñuul mu ne ko soo ko soo wanaasu woon rek sa safara lay yeesi yow Allahu yaa ngi dégg léegi imagine toi nga toog yow di di di di lëñbatu nit di wax ci nit lu ñaaw di wax ci nit lu bon di wax ci nit lu lu lu yées man dañ ne damaa ñàkk kersa man man dañ ne damaa ñàkk kersa parce que lu ma xamut du ma ci dugg min xosni islaamul mar'i tarkuhu ma la yaani ah gis nga li li li lii nite mooy li la amulul njëriñ romb ko ta dem ah waaye fa ngay nekk diggante détail yaa ma ne maanal kii lii la wax kee lee la wax baaxut doxut jamono ji dafa jeex ba pare am na ci yoo xam ne xaju fi bàmmeel dafa xat dafa lëndëm yóbbu fa nag loo xamante ne wax dëgg yàlla dalay xajamal rek ba baa nga fay jóge te xamoo kañ nga fay jóge def fa lu lay nooyal daal di la xeeñalal xeet gu neex moo gën kon su ko defee juróomeelu mbir bi ñeenteelu mbir bi daal daf nekk wax ju ñaaw foo ko dégg dawal te ñun ñëpp ñu ngi waxante lu ñaaw te yàlla moo bëgg mu rafet nag nañ leen ko rafetal ah wax si nu rafetal leen ko yàlla nee na rafetal leen ko maa bëgg mu rafet kenn ku nekk sama digganteeg yow rafetal naa ko kon sa digganteeg jàmm bi li fa li fa nekk lii lu ñagas rek xeexal ba mu rafet xam nga yàllaa ngi wax ak jaam bi ne jaam bu nekk ni ma la def fexe koo def sama moroomu jaam ah kenn ku nekk laa wax de yaa ngeek ak caay-caay goo bëggul mi def yëkku man sama bopp laa xam man ah bàyyi Ibou Sow sama bopp laa xam maa ngi ak caay-caay goo xam ni xoolal mbindeef jege wuuma ko ba ma ba ma xamal ko mais xam nga mu nu ma suturaale sama bopp est-ce que bu ma xamalee kii lu ñaaw du ma ko suturaale noonu mais fu ma toog maa ngi bëgg lëñbëti ayibu kii xam nga luñ naan ngay ngay lijjanti taabu jàmbur te yow nga am góom bu xasaw boo war a faj kooku doxut bara ngaa régler nit day fekk nga regle sa bopp ba pare kon su ko defee jamono ji toll nañ foo xam ne ku mën rek na bàyyi boppam xel di rafetal euh, di baaxal di jubal di yéwénal mu ngoog di suturaal ndax it lépp loo xoolee mbindeef bala nga dee yàlla na toll ko kooku moom maa ngi koy wat ci màggaay yàlla waaw wallaay defante baaxut ah man diw dofut maa ko gën a dof diw reewut maa ko gën a reew diw kannasuwut maa ko gën a kannasu diw mbaamewut maa ko gën mbaame kooku doxut baaxul nit day yor ji koy sang la tastawil xasanatu wala sayya li rafet ak lu ñaaw mënuñoo nekk benn bu la nit yàkkale ci ndabal toroxte fexe la raxas ndab la ba mu set yàkkal ko sa teraanga bu yàggee mu bëgg la ah bu yàggee mu bëgg la sëy yéeg njëkka yéeg bàjjan yéeg goro yéeg yëpp benn bu ci nekk nay rafet waaye madame la wax dëgg yàlla gorom jéppiwu ko maa ngi koy profité foofu gorom jéppiwu ko de heure bu toogeek man lu rafet lay wax ci yaay boy maa ngi koy seedeel yaay boy tey ci kanamam heure bu ma ooyee mu ngi may jox nuyoo yaay buy man heure bu ma ko jox ko nuyoo yaay buy ah. xam nga loolu mooy lan intimité mais intimité bi nga def jaayante ko ba sa goro bi yow ak moom ngeen neexoo kenn ku nekk war na ko jaayante digganteem mag boromam hmm? intimité diggante jëkkër jabar diggante yaay doom diggante papa nangam ni ko xeexee ba am ko foofu war ko xeexee sa diggante sa borom ba am ko fa intimité du wilaayatu de liggéey la rek léegoo li nga dégg ku ñuy tuumaal sax ak wilaayatu wala ak euh, mu'jiza wala ay karaama déedéet xam nga yenent bi buñ koy invité ñu poissonné yàpp bi mu yëkkati ndawal li ne bu ma lekk dañ ma poissonné loolu loo ko foog yow mu'jiza du mu'jiza de déedéet bëri waan na ñiy jàngale siira bàyyi bu saxo ñiy waxtaan lu bëri ci yenent bi fekk ne alors que dégguñu yenent bi fekk ñi dégguñu yenent bi dafa am lu yàlla jël jagleel ko yenent bi lépp mu téye ko ci digg ténxam bi am na ci lu muy doxal lu bëri du cadre mujiza waaye waaye teraanga la ju yàlla defal kon su ko defee yëpp dañ ciy juum waaw kay bay waaw góor dégg nga mu baax sëriñ Babacar nag am na ñetti tur xalifa Ababacar mbay benn bu ci nekk bokkut lu muy dox ak moromam xalifa dafa am lu muy dox Ababacar dafa am lu muy dox mbay dafa am lu muy dox góor gi nag du fecci kóllëre du dog bokk du wax lu ñaaw du wax lu amut moom góor gi bi àdduna sosoog léegi ban kilifa wala ban mbindeef nga dégg ma ne bi ma juddoo ba ni may ujjee sama borom mosuma fàttali ko fu ma sama borom ah na luy ñuul ci we fàttali mu ko mooyee boromam luy ñuul ci we moom góor gi ku màndu la woon ku sàmm la woon sëñ Babacar si nag buñ ko tuddee ñëpp wilaaya ga la ñuy xelaat waaye xam-xam ba nu mu toll kenn xamul nan la mais yetu gi moo dem ba nëbbu xam-xam bi Seydil Hadji Malick xam-xam bi moo dem ba nëbbu yetu gi boo ko comprendre doo ko mën a firi dégg nga wax Alaaji Malick si tur bi nag dafa neex kaar tur bi benn mag laa mos a dajal bu jógee ko faas jox ma ko jox ma ko sëriñ ni mu tur Alaaji Malick bi ismulaayil azam la lim temps boo ko ci liggéey li nga bëgg danga ko ci am yaa ngi dégg kon bu ñu yàlla wër wërsëgalee ñu mel noonu nañ ci jàppaat ba mu dëgër nañ ci mooy bañ ci sàkkan bañ ci caaxaan kon sëñ baabakar si ku sàmmoon la daanul jox li jigéen loxo daayira mos na ñëw di ko seet ne ko yow daal góor gi heure bu ñëwee duñ la gis mu ne mën naa leen a may benn yoon ngeen gis ma fii mais fee du ngeen ma fa gis su leen neexee nag ngeen bàyyi gis bi fii fa la ngeen mën ma gis dégg nga wax kon ku sàmmoon la ba digganteem ak jigéen daanul daanuñ ko gis ku sàmmoon la ba bu ayewaan ci néeg soxna am na néeg soxna am su mos a aye fàtte fa torsu soxna si di ko jox torsu bi waaye daf ne bëkk néeg bi jëlal ma torsu bi parce que du teggin comme sama ay jeex na fi ma téye soxna si téye courant bi di mas sama diggante loxoom te boobu soxnaam la ah waa léegi léegi ñiy sàcc kon di aye ji nag ah ñuñ sàmm nañ est kon léegi góor gu tedd gi ñuy waxtaanee bu ñuy waxtaanee ci moom jikko yu sell yi ah lan lañ ci war a jëlee moo ñu fexe koo jikkoo hmm? waaw nekkul ne dañuy tànt nii sara xoole yi neex rek ñu tasaaroo ñaan ba déwén ñu tasewaat déedéet dafa am waxtaan yoo xamante ne da ngay déglu njeexantal ya nga fexe góorgóorlu jaayante déwén ci waxtu wi am yu suufe yu nekkoon ci sa jikko nga xeex ko ba yu kawe yi nga am ko ci jikko yu baax yi ah li mooy yëf waaye fi nga nekk ren ci jikko déwén nga nekk fu ko gën a yées baaxut yow Alpha xam nga yow ci sa dignité ak sa personnalité ah rus nga rus nga laa wax de rus nga saw dab la saw ñu baal ma ci kàddu gi nga tekki sa baraake rek tàllal ko ci mbenn mi di saw rus nga ko nest mais am na ñoo xam ne loolu du dara ci ñoom voilà parce que am na yow loo xeex ba jombu ko am na loo xeex ba jomb ko am na loo xeex bu rus ko jërëjëf yaa ngi dégg kon nit ki waxtu wu nekk foog muy def efort di def góorgóorlu madame si la subaak léegi pour fii taxaw lan la daj dem na marché woote na dugdungi na ngir li taaru segam lii lañ mën a taxawal nag conn ci waxuma laa nag li yàlla soxla te mooy jikko yi kon nañ leen sonnaat ci jikko yi kon góor gi ñuy waxtaani moom sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu ku kenn xamut la daal ci tënk ak gàtt ku kenn xamut la foo ko natt rek weesu na ko foo ko natt ba di ko fa xool dépassé na foofu wax naa la léegi ba Haji Mansour xaw mi borom ñaari kaala yi borom ñaari kurus yi bu demee ba jël léppam jooyal ko ci sëñ Babacar war na ñoo xool jëmu jooj kan la ah nee na ko xalifatu chamsi diini waaw waaw waarisu malikin waaw waaw alayna al mawla wa anna wa itrati wallaay ndeysaan ñu ne Cheikh Hadji Mansour Sy Malick mhm. waaye leen nii ci borom ñaari kaala ya dafa am kàddu yoo ciy jërëjëf nee na mi ngi sant mu ngi gërëm xolam sedd na ci ñëpp ñu def ci bis bi seen ñàq yàlla na yàlla fay lante yéen bi jaay seydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñaari tëbuwaay nag moo fi am tëbuwaay wu yàlla gërëm tëbuwaay wu seytaane gërëm tëbuwaay wi nag la yàlla gërëm taal na nañ la jàppal fonkal yàlla dimbali la ci tëbuwaay wu seytaane gërëm nag ko ko mën a sori baax na su ko defee nag commencement du yomb commencé nga ko waaye góor gi def na ci loxoom ba nga yëg ko siru nag siru ak mbooloo mu bari duñ benn danga def jotaay mbooloo ma bari lool pëccëxoo ma jolli fekk ni siru newu fa danga nga jof def jotaay mu géey ci waxin walla ci gisin fekk ni siru mu nga fa mbutu yàlla ci mi ngi am jotaay bu ñu koy defal fële kër Biram Koraja ca gannaaw Passy muy bis bu ñuy tuddee xare Badar buñ koy def jour ba moom kase moo ko door mu métti woon lool mais moom mu doon gaynde ak jàmbaaru fàkk tëdd ñu tuddee ko Seydina Ali mu doon njàmbaar bi nekk ci turandooram mu jàpp bëgg gëm wóolu fonk yaakaar faalewut ci kenn lu ne mu ko ciy dégg waaye lijjantewul kenn ren jii nii la juróom-benneelu at boo xam ne ñu ko taxawal kon nag lu baax boo ko téye du yomb or yéen jigéen ñi bëgg ngeen ko lool am na wala amut or fu muy jaar ba ba nga mën ko takk mu rafet bañ naan la sa or bi rafet na fan lay jaar lu mu daj est-ce que tax na valeur am wàññeeku kon képp kuy nit nga nekk ci yoon bu baax li la cee gàllankoor loolooy li neex yàlla parce que mooy njëg li ak kum mën a doon ah wala yi yenent ñu baax ñi ñu yiw ñi kenn ku ci nekk am na loolu la yàlla laalale ci nattu ci mitit ci xat-xat ci tàngoor di xool yow foo toll ci moom li ngay woote dëggalul lu dëgg alif lam mim ahasaba nas an an an yutraku an yaqul amanna wa hum la yuftanun taxaw rek ne gëm naa yàlla yàlla nee na gëm gi rek du ma doy foog ma yónnee la ay mbir di essayer fa xam ngëm gi fu mu toll bëgg naa sëñ Babacar si gëm naa ko rek déedéet foog nga taxawal loo xam ne sëñ Babacar si dana la ca dana la ca wan boppam te xool ndax yow li nga taxawal gëm nga kool wala ko kon su ko defee jàppal fonkal njaboot gee ngi nii bis bi seen bis la waxtu wu ñëwatee rek incha allahu rabbi danañ ko taxawal doxalee ko nu mu gën a rafetee bu